gërëm aussi ambassadeur Fodé Silla parce que bu ñu waxee ne dañu organiser journée citoyenne yi euh, pour euh, def benn tournoi des moins de 17 ans dans le cadre de la détection des talents ñu ne au-delà de loolu ñun suñu dajalee xale yi ñu jouer football il faut ñu seet nan la ñu fexee ne ba mbirum liggéey bi ñu indi fi suñu participation moom mu ne au-delà de man sama personnalité damay indi sama association bu tudd ADEN bu nga xam ne liggéeyam si loolu la soxeekoo maanaam ADEN dafay liggéey dans le cadre de l'environnement dans le cadre de la recherche de la paix dans le cadre de lutter contre l'immigration clandestine ñu ne ñun tamit nawetaan loolu rek mooy suñu liggéey football bi nag moo gën a fës donc dinañ def tournoi bu 20 équipes n'est-ce pas équipe bu nee dina ñëw présenter foofu mu am tournoi comme ni ñu ko defee woon Saint-Louis dinañu permettre ñu génnee benn équipe type buy rejoindre cinq joueurs moins de 13 ans yooyu ñu jëloon Saint-Louis parce que fu ñu jëm mooy mettre sur benn centre de formation mais au-delà de loolu forum yooyu nar a def noonu forum yi dafay tax ne képp ku am projet nga bëgg ñu financer ko nga ñëw rencontrer ñu nga xam ne dañuy financer ay projet loolu moo tax au-delà stand yooyu ñu def noon ku nekk ñëw exposer projet am maanaam nga dugg ci biir stand bi lu nga réaliser nga wax ko lu nga bugg a def nga wax ko au-delà de loolu dafay nekk rencontre ñu mën a expliquer mécanisme de financement parce que Sénégalais yi ñu bay dañ su ma amee projet dafa am financement or que dëgg la loolu mais est-ce que xam nga yoon bu ñuy jaar pour ñu financer la rencontre boobu loolu moo tax muy am mais au-delà de loolu aussi ñu fexe ne ba caada bi mu mën a si am maanaam culture dafa am importance euh, c'est le parent pauvre du nawetaan mais képp ku ñëwoon suñu phase culturelle yi Kolda gis na ne que euh, nawetaan régorge na des potentialités mais dinañ def aussi seet setal n'est-ce pas en collaboration avec gouverneur boobu autorité yi fa ne ñu seet ndax ñun dañu def seet seetal si hôpital bi wala kon que activité yi dafay méngoo ak ouverture des classes dans le cadre ubbi tey jàng tey ñu seet lan lañ si mun a def mais lu wóor te mooy tey jii nii soo xoolee tey waxtaan bu ñu fi def partenaires yi ñëw taxaw fii gis nañu ne que incha allah jël nañ départ bu baax pour que journée culturelle yi mu mun a nekk ay journée yu nga xam ne ne dañ ko mën a ràññoo maa ngi félicité nag di remercier suñu parrain ambassadeur bi keroog bu ñu ko ñëwee seeti mu ne moom d'accord na mais aussi di rafetlu ko boobu ba tey bés bu ne am na ku ñu téléphoné Tamba am na ku ñu seet si dinaa rafetlu na le fait que Fodé Sylla mu nekk originaire foofu ñu organiser manifestation sportive culture yu mel noonu te moo ñëw ñëw parrainé ko di ko gërëm nag aussi lampadaire mu indi yooyu defe naa ne loolu dafa bokk si lu nga xam ne dafay gën a rafetal environnement bi.